bu yéeme te tiis moo ñu dab ñu bëgg leen ko yegge mu di accident bu am ba fukki doomi aadama ak juróom-benn ñàkk ci seen bakkan seize personnes yu yu faatu ci accident euh, Cheikh Anta maa ngi leen nuyu. waaw ñu ngi lay nuyu bu baax euh, Mouhamed Ndiaye. ndax mën nga ñu confirmer xibaar bi ak it fa nga jëlee source yi ak accident beeg ni mu amee fan la xewee. waaw accident bu métti la fii ci àllukaañ boo génnee daanaka puut ci carrière yi ba ngay dugg ci àllukaañ foofu benn bu yeboon daanaka soixante-dix places la ñu nee nañu bu mbëkkante ak benn camion frigorifique euh, fukki nit ak juróom-benn ñoo ci ñàkk seen bakkan ci biis bi lañu nekkoon biis bi nag euh, ñu bëri nee nañ da doon dem gàmmu paal gi ndaxte booy xool sax ci biis bi xaw na lemu ba ay bagages yu bëri ay ñam lu mel ne ay pombiteer yi ñu doon yóbbu ci gàmm gi yëpp daanaka dafa tasaaroo li ci gën a yéem aussi. vraiment euh, maanaam choc bi métti na lool ndaxte dafa mel ni bus bi dafa mbëkkanteeg oto pare daal di daw dérapé daal di mbëkk benn garab garab gi sax moo ko téye waaye mënoon na gën a ñaaw euh, kon nag fukki nit ak juróom-benn ci agent gendarmerie yi nga xam ne fi lañ leen fekk loolu lañu confirmé gul pour le moment. Euh, fukki nit ak juróom-benn. dañu wax ne ñoom ñoo faat accident bi ban heure la accident bi am ci. bon accident bi nee nañ vers euh, cinq heures du matin yooyu daal entre quatre heures et et cinq heures du matin la am. xam nga heure yooyu euh, dafay mel ni dafay brouillard bi dafa commencé di wàcc léegi. Mhm. xañ na fii l'éligibilité bi demeewul noonu fii ci àllukañ parce que booy daw fii ak poussière bi jóge ci carrière yi loolu xañ na mën na koo indi. te dinañ gis nañ ñu bis bi doon nee waaye nag oto bi nga xamante ne moom mooy car bi nga xamante ne euh auto jeune eh, bi eh, eh, nga xamne mom moko mbëkkit auto bi dafa yobal ay jeune momit danaka dafa daw ba dugg ci ravin kon nak jamono yi yobbu nañ leen fi nga xamantene mom may marque bu hôpital amadou sakhine jegen bu ties waye nak ñun ñi nga xamantene euh ñi fi romb di dem ci gam di ñom ñep ku ci nek yaangi wacc di xol yéme lool amna ci ño xamne sax sen ronk ñangi turu ci accident bi nu mu metti ak ñu annoncer na fukki nit ak juroom benn fatagul nañ ci accident bi donc cher Anta vous allez garder la ligne et nous faire un petit résumé en français mais en attendant nous nous ñu fatalé xibaar bi accident boo xamante dit. ji ci euh, faytolok à ben bus 70 places bu yeboon ay nit yu doon dem gamu ji bus bobé mon bëkkante ak ben camion frigorifique fukki doomi adam ak juróom morts Moi, li nga a bilan ci accident bi am eh, un euh, euh, petit résumé pour nos auditeurs qui bon comprennent pas très bien le le le wolof. accident qui s'est produit euh, on nous annonce vers 4h-5h du matin un bus en partance pour euh, à l'occasion du qui est entré en collision avec, un camion frigorifique et d'après nos informations il y a eu 16 morts et euh, les victimes sont évacuées à l'hôpital Amadou Sakhin de Thiès. Et actuellement, il y a les sapeurs-pompiers et les forces de l'ordre qui s'affairent autour. Même, il y a même des voyageurs qui sont descendus euh, pour regarder de très près ce qui se passe. Mais non, actuellement, euh, véritablement, c'est un accident mortel. En tout cas, les, gens qui sont descendus pour voir de très près. Il y a même des gens qui ont pleuré et pour vous dire l'ampleur euh, des dégâts et l'ampleur même de cet accident. Et pour le moment, nous suivons l'affaire de très près en attendant d'y aller au, niveau de l'hôpital Amadou Sakhin de Thiès pour voir euh, s'il y a d'autres victimes. Mais pour le moment, on dénombre 16 morts au niveau de Alokani. Espérons qu'il n'y en aura pas. en direct Futur Média